loolu nag mooy wax ji loolu laa jotee président Macky Sall ko ay ko maa ngi ko dox ak suma mbokk kaw la euh, Grand Yoff bi ku ne ñu dugg ba ba sénégalais yi nangu constitution bi defe naa à soixante trois pour cent leer na bu baax ni ko le professeur de droit constitutionnel monsieur le wax ko ci vidéo boo xam ne bu xorom la nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs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 bu ko defee mu doon un exemple pour l'ensemble de l'Afrique constitution indi président Macky Sall dafa war a aussi respecter kàddoom ndax mu ngi ci internet bi yépp dafa war a aussi peuple sénégalais bi nga xam ne vraiment jox nañ ko lépp waru leen a mere waru la mere benn peuple sénégalais 2012 dana ko fal ñu dem àndoon ak moom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 jarul mu leen di mere jarul mu leen di tontu waaye nag li nga xam ne moo waral la ne te président bu Buhari wax ko ma d'accord ci bu ngeen demee ci internet bi léegi wax na ko ci semaine bi ñu génn assemblée générale des nations unies président Macky Sall ma nga fa woon mu def mise en garde chef d'État yi nga xam ne dañu bëgg utiliser seen constitution ci anam bu dul noonu pour des au pouvoir kon loolu nga xam ne